Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Aïda Ndiong jommi na jomet xaalis bi ñu koy waxal ne moom la toogaale ci teranga te mu toll ci ñeen fukki milliards ak juróom-ñett xaalis boobee coow la ci am ba léegi jeexagul ñu jeexi leneen la ci xew lees ci observateur yéene kaay bi nañu koppar ñu toll ne woon ca CBAO banque ba mu nekkoon waa CBAO ñetteeku nañ ci baset wecc yëf ya ma nga léegi ñu yóbbu ca caisse de dépôt et de consignation fa la ñu ko teg ñu teg suñuy gët ci Walfadjri teg ay gëtam ci wàllu politique Macky Sall ma ca jiitu la ca journal ba gis gannaaw ab jàngat moo di doom yi Abdoulaye Wade yi fi Abdoulaye Wade bàyyi woon ci wàllu politique Macky Sall fàtt na leen projet bi mu teg moom Macky Sall di acte 3 décentralisation populaire nañu Khalifa Sall meerum Dakaaru fàtt na ko Khalifa Sall ay kàddoom ci xët njëkk journal bi mu ne acte 3 décentralisation beeg ni ñu ko doxalee weesuwul fekk Ndakaaru mu dund ñaari téeméeri li mu am ko ci histoire ko ci benn bëccëg fekk diwaan bu mel ne Ndar li mu am ci ci ci benn bés meerum Dakaaru Xalifa Sall yéenekaay bi di populaire nañu li mu gis ci acte 3 décentralisation moo di dañoo yàq Sénégal yi démb Sénégal yi ci la xëy tey ak waxtaan wu mu séq ak Ceerno Seydou Nourou Tall mi imam bu Rawdatu Seydou Nourou Tall imam bi nit li waa enquête yéenekaay ni Seydou Nourou Tall jàppale Léopold Sédar Senghor ak ni mu jàppee ci paluk Abdou Diouf njiit réew mi Macky imam bi ne waa enquête bu ngeen gisee ma yoro mbay laal observateur xanaa ñëw amoon diggam ak doyen des six tolloon ci fukkaat boobaak léegi yëfee wut ni wat na tribunalum Dakar ma nga koy lijjanti la Sénégal nañu mbir moomee nar naa ju coow dox ci diggante doyen des six ba woon maa wase mu Juuf ak Mayoro Mbaye lépp tukkee ci message yu Mayoro Mbaye ne amee na ko da ko doon message santé ak doyen des six tey message la yoo xam ne bés bu ko génnee àdduna tukki loolee la doyen des six ba woon di maa wase mu Juuf nangul ba tax mu yóbbu yëfee ci yoon bëgguñu lijjanti ko kenn ci awokaay maa wase mu Juuf yi di maître Xasimu Touré ne ci xëtu njukku libération Mayoro Mbaye ak message yooyee muy wax jubluwu ci dara lu dul yàqub dara waaye dana ko rëccu diggante Modou Lo ak Eumeu Sène kan ci ñoom ñaar moo ciy rëccu ngoonuk tay tay la ajjuma fanweeri fan ak benn ci weeru janvier diggante Modou Lo ak Eumeu Sène direct fa nañu ajjumay tay ji ajjumay danger ci ñaari mbër yépp Walfadjri ak Populaire xëy bokk ca dikkee mu di bësub dëgg jour de vérité combat baak fa mu jaar ba yegsi fii observateur gis te juróom-ñetti mbir juróom benn mbir yi Max Mbargane gis ci combat Modou Lo ak na ko sunu lamb wàllu mental la foofee mu ne ñu fa Modou Lo ak Eumeu Sène ñoo fa tolloole ku ca nekk huit sur dix nga am wàllu physique mu ne foofeet ñoo fa tolloo ku ca nekk huit sur dix mbirum encadrement Max Mbargane ne waa sunu lamp ñaari mbër yi kenn yóbbulu ko sa morom ku ca nekk sur dix mbirum expérience ak technique Eumeu moo ko ëppale Modou waaye bu dee bagarre di xeex dóorantey kurpañ raak Modou moo ci mën Eumeu Sène combat ak Eumeu tey ci ngoon waa